asalaamaaleykum peuple de Yewwi Askan Wi waa coordination Yewwi Askan Wi département Dakar ñoo ma yëbbante ñu ni ma na nga wax askan wi fi teew ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sang yi Seydina Mohamed dañu gërëm les leaders de Yewwi Askan Wi boo yi fi nekk moo xam góor la ñi def nañu loo xam ni way la boo xam dootul fay ba abadan lii ñu taxawal muy coalition Yewwi Askan Wi jaamu yàlla la waaye ndam la pour réew mi c'est des hommes déterminés c'est des hommes engagés c'est des hommes désintéressés c'est des hommes d'expérience c'est des femmes déterminées c'est des femmes engagées c'est des femmes d'expérience uniquement pour le service du Sénégal et pour l'intérêt général qu'Allah subhanahu wa ta'ala cette coalition. Que cette coalition, au soir du 23 janvier, soit la coalition victorieuse. ñooñu ma seen ànd bi bu mu yem fii na ànd bi di dem di wéy di am ay ndam di dem di am ay ndam ba 2024 ñu jël réew Sénégal changé le pays. taxawu Sénégal ci taxawaay bu am set am crédit te pur ndax bés du ñàkk te le 23 janvier waaye bésu ndam la loolu mooy tax ñu ànd saxal liggéey ñun waa Yewwi Askan Wi yaakaaru réew mi ngir Sénégal bi ñu bëgg vive la coalition Yewwi Askan Wi vive les leaders la coalition Yewwi Askan Wi la jeunesse la coalition Yewwi Askan Je voudrais parler un peu de mon ami, frère et compagnon Barthélémy Diaz, à l'image de ton le navigateur. Barthélémy, yam ñu sa gaal yóbbu ñu ci peexu Ndakaar yi ngir yàllawu